زرما تحيل وإن شط بك الدار وحال من دوني شغل وأوان

bisimilah walhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu suñu kilifa diine yëpp. di ñaanal ki nga xamante ne moo teewaloon Serigne Touba fii si Thiès di Serigne Saliou Touré yàlla na ko saa yokk ay leer boo leen gisee mbooloo mi sama ginnaaw muy mel ne liñ doon waaj boobu ba tey di ziar bi ñoo ngi si wàccaa wi nii xam naa dañuy daal di fekk ji waa cuisine ñu dëgtal leen lu fi jot a bàyyee ko laataa ñuy dem ca bërëb ba. ñu ngi taxaw ak benn jëwriñ euh, cuisine kon xam naa dañ koy daal di dékk suñu micro rek mu wax ñu ana naka lañ ko waajalee boobu ba tey jëwriñ ziar nañu. ñu delloo ziar bu baax waaw liggéey bi nag liñ euh, ko tënkee woon nag wax dëgg fa yàlla am nañ ci satisfaction ndaxte soxna yi ak góor yàlla yi yëpp heure bi ñu leen joxoon euh, du ma ne ñëpp nag waaye li ci ëpp heure bi ñu leen joxoon ñëw nañ ci heure bi. Euh, kon euh, mel na ni liggéey bi ñor na leen te itam euh, sart yi nga xamante ni ñi ngi ko teg ci liggéey bi pour ñu doxe ko wax dëgg fa yàlla du ma ne ñëpp waaye itam bari nañu ko ci sàmmonteel kon mel na ni liñ bëgg liñ bëgg a la sëñ bi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci duñ ne wut ci lépp ci yoon wi itam ñi ngi ciy góorgóorlu li ñu man kon mi ngi noonu noonu la ñu àndee fexe rek euh, ba euh, liñ li ñuy sàkku muy ngërëmu sëñ bi ñu am ko ci liggéey bi euh, fexe itam ceeb bi niñ ko bëggee rek mu neexee ni rek ñu def la tout ba mu neexee ni ndaxte lool itam da cee am solo ndax kuy togg ku ne da ngaa ñaan yàlla mu neex. di nga jaajëfal jëwrin بما فاق ذنبي من مزايا بدا الخزي وشاكرا